allahu akbar ba nag ñu ajibali bi kii mbir yi tàmbali na ñaan yàlla ñu am ci lu barkeel ah garab yi daa mel dafa foor de caméraman yëpp a ngi sëqat garab yi foor na de yi daa mel garab yi neen caméraman yaa ngi sëqat garab bi instant bii gisuñu xaas mu wax dara daal na noonu gis mu wér rek ñu xool loolu lay mujjee wax dëgg yàlla lii Afrique la nekk rek di tubaab tubaab lu ko sànq lu la dal yaa teg sa bopp jóg leen seen bopp am na loo xam ne que mbirum hôpital la dañ koy yóbbu hôpital am na loo xam ne que réalité Afrique la. nag na alhamdulilah ni mu def ni xaalis di sëqat bi mu ngi ëpp garab yi. bien sûr dafa rab saytaan. waaw dafa rab saytaan. ok. waaw xam nga. ngelaw li ko solo. waaw kon boo ko jëlee buntu en réalité ah. lii nii ñu ngi jël ko. ah ñu ngi lay affaire yooyu commencé di wàcc. day commencé di wàcc léegi. kon tey mënoon jël engagement ne tey surprise. non non tey moom dinañ def lu ñu mën ba bu ñu ñëwaatee. Ah. ci soobu yàlla bu ci tànk bi loolu mu mel noonu la ko sol ngelaw la ndeysaan bi yëpp ñu baree ngi jooy fu di doon ñu baree ngi jooy yëmu ndax jaxle ndeysaan Fane Mbaye waaw jaram yaa ngi kii. yëkkati beneen bi. mu ngi yëkkati beneen bi. mu ngi tisali rek. ni yére bi dafa mel lu koy déranger. asalaamaaleykum. si kenn doo ko dindi. ma dindi. benn lépp doon jàmm salaam rek. yëpp ci yéen. massa massa massa. ah. mënul ñàkk nga mënul ñàkk ah mais mais ngelaw buy génn la la. ndeysaan. oh non non. ñu yàlla yombal mbir yi. yàlla ko yàlla barkeel. te jeexal am na biir am na ku bëgg lu baax am ñoo xam ne bu mën a xool ci internet bi instant bi seen xol dafa gaaw a tooy te li naan dund bu jeexagul lu leen mën na ci xaj lii ko dal lii ñun ñi ñëpp kenn muccagu ci ci àddina kon nit nay am yërmande nit nay rafetal nit nay gëm yàlla nit nay sóoraale lu ne am yërmande yërmande lu baax la Cheikh Abdoulaye Diouf Khass nag jël na engagement boo xam ne que diis na mais nee na woon ba ne la lii moom mën ko kenn forcé wu ma ko maa ngi jël engagement te incha allah ndama ci am tey def tournage émission bu euh, triste nii daw oh là là ndeysaan. moo tax bu nit yi di wax rek jëf moo ëpp solo wax nit yi gis li war a newoon xaas xaas xaas xaas tey moo nekk li war a àdduna bi di coow xaas nag moo nekk nii engagement la jël. tàmbali na tay ak fa mbay bant loolu mu fay ah. ah yàqu daal. dañ koy muur dañ koy muur. bisimilah. sàng nan ko ba cet tànk yi rek ay feeñ fi mu nekk ak suuru. suuru bi nag du neex nga day laaj ñëw tuuti. sëñ bi gis nañ ne gis nañ mi ngi daw ba tëbale. na ay ñu suur ñëw jàpp gis na ne yow fàttali la la sant bul sonn waaw ñoom kaati moom yëpp a ngi fi ak buuse dëccëg mi ngi di def ah. meew meew meew meew. ban façon meew bi ñëw rek ah. meew bi bii nag moo leen may plus gratuit yi jëm waaw. suuf yombul. mais muñ rek. ah mbàjj bi mbàjj bi ngi yokk massa massa mbàjj bi dafa jege àll bi. benn fan yombul massa bu bi fii léegi kon instant bi ku koy photo ku koy filmé dootul xam lu xew. nekk nii. man mii sax nekkatuma ah bon kon Balla tamit dina am lu yëg. am na fay bi day toll ba woon. ah. macha allah. macha allah. donc yooyu yëpp ngelaw la. ngelaw la. mooy. la ilaha illallah. Afrique la nekk rek. xaas a ngi nii li ma war a ñëw sëñ Abdoulaye Diop xaas xaas xaas xaas. ah. il faut ñu diw ba biir. ndeysaan yàlla nu yàlla dolli sutura may ñu wér ak wérle ku am wér nga sant ko yàlla te ñaanal di ñu wér nit kenn du ko yéene feebar. allo allo yéene jàmm sax ah. ndeysaan. moo tax mel ne ay sëñ Abdoulaye Diop xaas dafa baax ci réew. ñu mel ne Wally Seck dañoo baax ci réew di am yërmande di lu nit di wut am ko ba pare tal yërmande tal jàppale nit te yàlla tax bismillah jëfna bismillah allahu akbar allahu akbar